mbokk internet di yi jën jëf lii di ab néew bu ñu fekk fii ci bassin de rétention bi nekk ci wetu daral bi fii ci njaareem ñu gis ko nag muy ab néew boo xamante ni dañ ko fi fekk muy féey ci kaw ndox mi lii nag def taxaw seetlu askan wi ñëpp tiit seen bopp ngir ñëw di ko seetaan si néew bi nag moom ba léegi xamaguñu ay mbokkam xamaguñu identitéem ndax fekkuñu ci moom benn ay kayit te jamono ji may wax ak yeen sapeur pompier yi ñi ngi di ko ci ay auto ngir yobbu ko hôpital kon li di lu xawa doy war lo xamanteni askanu ndiarem tay yewu nañ ak nakar wu ni mel ndax kat bassin bi mom dafa déborder ba jël ndox mi jël nangu tali bi ci nawet bi ba mu doré ba légui ministre de l'intérieur ay jamonoom Aly ndiay ñewon na fi ba xol ko waye nak mi ngi yok di jur tiitaange ak naqar fii ci askanu njaareem ndax kat ay yeew lu nekk mi ngi ci biir ak insécurité bu doy waar a waar waar waar waar